Ngoné mbay jooyloo réewum lëmm ndax jomam bés lañu ci tekk yàlla wane boppam mu jóge ci njaayum buum am liggéey bu méngoo ak li mu jàng muy transit mu am contrat à durée indéterminée boole ci it mën yeggali am jàngam ci ndimbalu Abdourahmane Baldé man maa ngi tudd Abdourahmane Baldé Euh, nek njitu cabinet AB Partners yor tamit euh, benen structure bu ñuy naan Mariba SARL waaw comme ni ngeen ko gisee ñun ñëpp ko sétanando euh, jigéen bi nga xamante ni mu ngi daan dooleem te xar tànku tubéyam pour génn ci ñu xam ne Sénégal nu mu méttee ak difficulté yu ñu am malgré que jàng na moom optewul pour dem ci ay affaire yu facilité wala di mo yàlla wala def leneen ak leneen bi ñu seetaanee vidéo bi émotion lañ ko jëlee certes waaye ci émotion boobu ñu ko nous nous wut solution solution biñ ci a may ko accompagner aussi ci walum jangam, inshallah. lancer un message qui suñuy rakk yu ak suñuy même situation ci nous. Nous yalla jeexut dina def ni xeyna parfois il faut nga jaar ci yenn yi pour nga ci ñu jàngat ci dara mooy amul soo métier lépp looy def gëmal ni yàlla mën na la fekk si ngone ci mu am tay. dama doon xëy rek di sama doole ngeen fekk ma fa parce que gëmuñu lu dul liggéey te tamit appel la dal pour jeune fille yi ma wax leen ñu gëm seen bopp man fu nekk laa jaar soo demee suñu koñ syndicat sax dem fa di saaf gerte dem naa di jaay mais yalla y la ko dogalee woon ma ci sante nak bu baax. di ci parce que le euh, contrat buma ma la ma ñeu fekk fi wa AB ñu nekk ñu baax soutenir ma parce que li yep yaakaruma ko ci won mais je ngi leen di sante di leen Je di di ñaanal parce que je suis doomu adam sant yalla parce que daf ñu daf ma dimbali parce que fu dem fa euh, déposer fu ne dem naa fa wut liggéey waaye fii la ko yàlla dogalee woon may sant may sant Abdourahmane Balde AB na bu baax parce que jàpp na ci torop jàpp na ci te nit ku la soutenir moo la dimbali. Abdourahmane Balde di xamle ni defu ko ngir ngistal. di préciser ni tamit du ngistal parce que boo leen renseigné vous êtes des journalistes euh, di ngeen gis ni dëkk bi ma dëkk. amna liñ ci jot def ci sutura wutuñu ci ben interview c'est la première fois may nangu ji wax ci presse bi waye boudé dee mën na permettre ñeneen ñu am ci fit wala inspirer ñenn ñi pour ñu mën def la même chose lolu mën nañu permettre ñu nango wax waye sinon euh ñuy def ni yalla mi ma tiim xam nañ ne nañ ci. wolof njaay di wax ku yag ci ten bàkk fekk la ca firnde bi moy li Ngoné am tay muy ñaax mbokki jigéenam yi ñu fas seen lafu sër te bay yaakaar ci kenn. man gëmoon naa ni un jour dinaa am si dara parce que dama ko ñafe dama takk sama sër ma wodd ma góor góorlu ma liggéey waaw xamoon naa ne dina metti rek waaye tamit dina ñëw waaye maa ngi sant yàlla bu baax di sant itam di wax ni xale yu jigéen yi nañu góor góorlu ndax àdduna amul solo surtout euh, période tabaski bi man gis nga dama gëm sama bopp rek jël samay buum dem di jaay. xalaatu ma woon sax lii di ma fekk da ngay gëm sa bopp tabaski bi yàggul matu sax benn jour soo rayee sa xar midi la ngay pare bu mu la jaral nga def fi yenn yi greffage bi jaru ko sañse bi jaru ko téléphone bu rafet bi jaru ko yàlla baax ne dina ñëw góorgóorlu leen ngeen woddu ngeen liggéey liggéey rek mooy maye liggéey rek bu dëgëree bu yàggee di nga gis ku baax ku la yàlla booleel liggéey xale jigéen yi liggéey leen ngeen góorgóorlu at amul solo. dafay fekk ñu jàppale la loolu tax Abdourahmane Baldé di ñaax ñi mën ñu jàppale ñu mënul. pour mën a ñaax autorités yi ñu xam ne jeunesse bi de manière générale sonn nañ ñu ñaax nit ñi ñu continuer di entreprendre ba yàlla fekk leen ci li ñu nekk. waaye tamit ñaax autorités yi nga xamante ne yàlla may na leen wërsëg ñu nangu di séddoo ak nit ñi parce que gis nga plaisir joxe ci xol la certes. waaye li la ci yàlla bindal tiyaaba ak liñ ci mën a génn yàlla rek a xam man de bëriwuma alal bëriwuma lu bëri ci ci li may def waaye lépp li ma am gëm naa ni doomi aadama yi ñoo ko moom parce que gëm naa ni ndénkaane la rek te bo yàlla bu la dénkee dala xam naa da nga war a organiser wu ñi nga xamante ni ñooy sa njege ñaale sa biir famille sa sa sa sa àndandoo ñi nga xamante ne xam nga leen mënoo faj soxla ñépp nag waaye lépp li nga xamante ne mën nga ko da koy def te yàlla tax